jéego mu ne mi ngi rafetlu it jéego yi. nit bu nekkee ci tiis. nit bu nekkee ci tiis. ak ko naqar. faaw day laaj koo xam ne da koy dimbali. rawatina dimbali nga ci ëpp solo. rawatina dimbali nga xam ne moo ci ëpp solo. muy wettali ko. suñu borom dafa wax ci alxuraan ne. suñu borom dafa moom rek moo xam kañ la bis penc di taxaw. moom rek moo xam kañ la bis penc di taxaw. moo xam kañ lay taw. mooy xam moo xam it kañ lay taw. moo tax xaddis ba. moo tax xaddis ba. wax ne kese mun a jimu. wala sadaqa loolu mooy li waa météo yi def rek. mu nee na loolu mooy li waa météo yi def rek. ndax boo seetee. boo seetee. ren ren. waxoon ne ndox mi day bari. waxoon ne ndox mi day bari. dal ci seen te li dal seen kaw. ñu xam ne dogalub yàlla. mu xam ne dogalub yàlla la. waaye mu ngi koy métti loolu da koy nee na mi ngi koy métti lu bu baax a baax di ko ànd ak ñoom. ànd see yërmande. ànd see yërmande. tey wax itam. tey wax tamit nag. di digal jullit yëpp. di digal jullit yëpp. muy dimbalante ci seen biir. muy dimbalante seen biir. rawatina ñi nga xam rawatina ñi nga xam ne nii. Eh, seen kër dafa yàqu. seen kër dafa yàqu. ñu génn seen i kër. ñu génn seen i kër. te alxuraan moo ko santaane. te alxuraan moo ko santaane. kon loolu. kon nag loolu. sëriñ bi nee na. sëriñ bi nee na. mi ngi digal ñëpp. mu ngi digal ñëpp. dimbalante. dimbalante. ñi nekk ci biir ndox mi. ñi bi nekk ci biir ndox mi. ku ci tane sa morom. ku ci tane sa morom rek. nga dimbali ko nga dimbali ko. te xam ne soxla na ko te xam ne soxla na ko. kon mi ngi masawu ñëpp. nee na mi ngi masawu ñëpp. yéen ñi nga xam ne yéenay état bi. na la sa des nag yéen ñi nga xam ne yéenay bi. te jabooti nit ñi. kon nag sëriñ bi wax na ne. kon nag sëriñ bi wax na ne. yéen itam la leen ci war. yéen itam la leen ci xam ngeen xam ngeen ko si taxaw nit ñi lu leen ci war a def rek lu leen si war a def rek ndax nit ñaa ngi dund lu metti ndax nit ñaa ngi dund lu metti ndax ñi seen kër yàqu na yàqu nañ génn nañ amuñu fu ñu dugg génn nañ amuñu fu ñu dugg ñi ci des itam ñi ci des itamit eh, seenu dund yàqu na seenu dund yàqu na kon kooku laaj na ko ko dimbali kooku kon laaj na ko ko dimbali